ginnaaw ba mu génnee def ay révélation yu doy waar si ki nga xamee ne mooy moo gétt ab pexe bi muy waajal ki nga xamee ne mooy Wally Ballago Seck ab photo boo xamee ne kii di moo gétt dafa jël ab tubaab boo xam ne xarañ na lool si wàllu montage jox ko alal bu baree bari ngir mu jël kii di Wally Seck defal ko montage boo xam ne képp ku ko gis doo weddi ne mukk kii ab góor jigéen la astaghfirullah ki ñu ko xamle woon di Tanstane Njaay génnaan na tey si digganteeg Sonko Adji Sarr waaye ab rumeur bu doon daw si digganteeg Sonko ab soxnaam soos tudd Anna divorce bi gars yi doon lim laame Tange leeral na lépp si diggante peut ki nga xamee ne mooy Adji Sarr Ousmane Sonko lu ñu doon lim laamee wàllum divorce ki nga xamee ne mooy Sonko ab soxnaam soosu tudd Anna divorce bi kii di Tange Tandian confirmé na ko nee na loolu lu am la ginnaaw ba ñu ko dalalee si Buzz Sénégal si émission boobu lee ñu gën ko xam si journal People Vision Tange yemul foofu dugg na ba si biir mbir yi mi ngi ñuy xamal ne kii di Adji Sarr ba mu demee si procès ba wax na ne kii di Sonko da daan ñëw di ko nettali lépp lu mu saan xew si kër gi moom Adji Sarr yemul foofu rek nee na Ousmane Sonko da ko doon nettali ba di ko nettali vie privée ndax kii di ab soxnaam tudd Anna gannaaw xuloo ba mu amaloon ki nga xamee ne mooy Ousmane Sonko seen jubóole première guddi bi mu ko doon tertu ab nuisette bu la ko teeru nuisette bu rouge boobee aji saa loolu moo ani kaa kër Ousmane Sonko ba ani dégga loolu la Tange xamle looloo waral kii di Anna mi ne lii di aji saa nettali dara sikku si li mu wax lépp dëgg la looloo waral tey Anna demande divorce dem fi nga xamee ne mooy kër mbokkam maanaam ay waajur Tange yamul foofu lee ndax tëkku na kii di Ousmane Sonko moom Tange mi ñuy xamal ne bu fekkee ne li muy wax dara du si dëgg moom Ousmane Sonko na génn Taj li ngay wax lépp ab kàcc la gannaaw révélation yu doy waar yooyee moom Taj mi ngi dëggal boppam nee na kii di Ousmane Sonko bu fekkee ne lu muy wax dara du si dëgg na génn ko Taj da ngay kàcc Taj nee na Ousmane Sonko du génn mukk du wedde lu nu mel ndax coow li sax nekku rek si nuisette bi waaye sa ruus bala